fukki nit buñ leen joxoon aw ñaari junni ne leen yéen a ko bokk bu ku nekk bëgg a daggee sa wàllu yóbbu loolu mënta jariña ndax buñ xasee ba daggatee fukki junni ba ñaari junni ya ab junni ñaari junni bu buñ ko joxee fukki nit ne leen yéen a ko bokk ku nekk bëgg a jël sa wàll loolu noonu mënta sotti waaw waaye ñooñu ci boppam dañuy jël kenn ne ko yow lañ jox ñaari junni yii te ñun fukki nit yii yow lañ jiital juróom-ñeent nit ñi ngi ci sa ginnaaw mhm. jëlal ñi ñaari junni yi nga eggale ko foo xam ne ñun ñi nekk sa ginnaaw dinañ dem ba man caa jëriñ loolu nag li ma ci bëgg a wax mooy président bi bi fi toog mhm. ñun ñoo ko fal mhm. jox ko suñum réew ne ko dañoo bëgg réew ma dem foo xam ne fa sori lay doon moomul réew mii ñoo ko bokk ak kon bi ñu ko falee rek li mu war a njëkk a def mooy respecté ñi nga xam ne ñoo ko fal waaye ñun suñu réew mi bu ñuy falu dinañ wax la lu ne. Mm. moo tax ma ne pan panafricanisme la ku bëgg a falu di woote woo. te ku fi falu fàtte sa askan dootoo faaleti kenn. waaw mm. waaw ku fi falu nguur ne dootoo wàcc ak lu mu laaj. te sax si sàcc alali sa réew. sa askan di souffrir te ko wax nga bàcc. waaw amatuñ opposition bu baax. Mm-hmm. parce que ñooñu ñi ci ñi ci ëpp tey seen intérêt moo leen fi bàyyi. opposition transhumance. Mm-hmm. dañuy ñuul tey suba ñu weex. waaw gis koo xam ne day xas Macky Sall ba ba mu neex ko mm-hmm. mu xëy suba daal ànd ak moom kooku ndax bu la waxee ne mën naa yor réew mi ndax ndax mu naxu la dañ ñoo not ba ba léegi xoolal tey dund gi ni mu soyree ba 2012 dund lañ doon jàmbat ne lii dafa yokk tey ay nit ñëw wax ne ñoom buñ toogee dañuy wàññi dund gi tey xoolal tey fa ñu yóbbu dund ga askan wi leen fi teg dund gi seer na xiif bi metti na waaye liñ ciy jàngee tey Alpha kon mi ndaka ñaar lan la def ci réewam def na lu ne def na lu ne te doguma la gay dégg naa tey dañ ko coup d'état waaw moom yaa na lu ne waaw cest jox information bi boobu sànq ñam dañ ko coup taa léegi moom waaw kooku rek jàngat la ci ne nguur goo gis dina jeex mhm. président Tchad bi faatu woon jamono bi ne la woon jamono yi Hissène Habré Hissène mhm. Habré ne nañ lu nekk réewam def na ko mhm. ndax bi yàlla nammee jeexal ak nguuram ndax nguuram jeexut jeex na dafa am benn histoire bu may nettali boo xam ne Tunisie la xewoon ndeysaan ku ñuy wax benn Ali mhm. président moo nekkoon président Tunisie am na fa yaakaar naa ñaar fukki mhm. amoon na kàttan goo xam ne daawul wax kenn di wax mhm. réew ma dañ koo ragaloon lool ngir kàttan gu mu amoon waaye dafa am benn jour benn ku ñuy wax benn ambi benn ambulant dem ci supermarché bi di fa jaay policiers yi daal koy fekk foofu dañ ko da ngay jógee ci ci supermarché bi mu ne leen fii du ma fi jógee ndax sama teraanga fii la nekk léegi ñoom ñu jàpp ko yóbbu ko police dóor ko dóor yi métti loolu bi mu paree nag maanaam mer jàpp ko mu dem taxaw ba ca buntu pale ba daal fay taal boppam bi ñu xëyee askan wi nga xam ne ñoo ko ragaloon ñoom ñoo wàcc ci pale bi ne tey moom benn àll du fi fanaan militaires yi wax wax ñëpp gars yi na taxaw daan ne tey day génn pale bi. ci mhm. koo xam ne population am ñemewuñ ko woon. daawul wax kenn di wax. Mhm. waaw mu de militaires yi dem si moom ne ko euh, euh, nguur maanaam waa réew mi nee nañ. Mhm. doyal nañ ci yow dem rek ngay def mu ne leen léegi nañ ma may li nga xam ne moo ma desee ci sama mandat ma àggale ko. at at am at rek su ko defee mën ma ju mën ma mën ma jugee ci réew mi. ñu ñëwee wax ko askan bi dañ ñëw mënuñu koo may sax benn fan. léegi militaires yi nag ne ko ne ko leen lañ mën a ci yow mooy rawale la nga génn réew mi mhm. waaye bu ñu ko bàyyi kon askan bi dinañ la dinañ la rey ndax ñun askan bi dañuy def ànd ak ñoom kon kooku bi yàlla na mee jeexal ak nguuram ci kenn nit la ko jaarale kon nguur goo gis dina jeex mhm. am na ñoo xam ne amoon nañ fi kattan goo xam ne yaakaaroon nañu seen kattan bu jeex dëgg la te bi yàlla na mee wàcc seenu kàttan mhm. day jeex la bu seytaane nekkee ci yow nag daf lay roof adduna ba nga yaakaar ne adduna moom ku tegoon li gën a kawe ci adduna sax da koy téye nguur bu la ko yàlla joxee mhm. dangay naw sa bopp ñu ci bëree bëri mhm. li ñuy njëkk yaakaar mooy lu ñu bëgg rek dafay am ngir lan am na pouvoir boo xam ne suñu borom jox na leen ko waaye ndax pouvoir boobu noonu dénk gi la ko suñu borom dénk dafa am ñum la ko dénkale mhm. yow dong moomoo ko dañ laa fal ne la jiite ñu waaye jiite ñu ci ngor ak dignité ak la waaye di jiite ñu ngir mën a yóbbu suñu réew fa mu bëgg a egg waaye ñoom nag bu ñu toogee dañ fiy nekkal seen intérêt bopp waaye duñ fi nekkal réew mi ku leen jege di nga di nga yor yi milliards. Mm-hmm. waaye képp koo xam ne àndoog ñoom way po ci way pauvreté yi lañ lay bëgg a boole. lépp loo am dinañ fexe ba jëm cee teg sa loxo. Mm-hmm. bu ñu xamee ne sax yow mii war ngaa nar ngaa gàllankoor seenub liggéey. Mm-hmm. dinañ la jéem a xool nuñ la faagaagalee ba yóbbu la police wala ñu jéem sax faagaagal la. ndax ndax lan ndax nguurub àdduna. ndax da koo jar. xanaa xamuñu ne nguur yàllaa koy joxe waaye moo koy moo koy moo koy moo koy xañe. gis nga ak loo mën def. bis bi suñ borom wax ne sa nguur day jeex xanaa ku li xaal day jeex kenn mënu ci dara moo tax nañu wàññi dund gi mm-hmm. te dimbali askan bi sonn nañ chaque jour dama koy wax ñun Sénégal la am mm-hmm. te suñu lépp fii la nekk mm-hmm. même bu ñu yërëmut ñu yërëm mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey liggéey fi loo xam ne tey ñoom ñoo tax ñoom ñu yor lii waaye da ngay gis Sénégal tey président bu fi nekk tey waroon nañoo dem ci kilifa yu mag yi ne ñii ñooy suñuy conseil ñii ñooy suñu lépp mm-hmm. waaye dañuy jéggi réew mi jéggi Afrique dem ba ci réewi tubaab ya naan dañ fay wuti ji loo xam ne carrément dañuy biir nañu am na fii Afrique li fi am amul fenn mm-hmm. waaye dañoo dooleelu li nekk Afrique ndóol moo tax doomi Afrique océan Atlantique doon seen i bàmmeel mm-hmm. te suufu Afrique bi fees dell ak i koom loolu nag li koy dindi mooy dog bu mu noteel bi nga xam ne dañu koo nopp dañuy wax ne pan panafricanisme maanaam euh, nu mu tuddati indépendance bi bi ñuy wax. wallaay indépendance si wax la yem. ci wax la yem mm-hmm. ndax nit kuñ tënk rek amoo indépendance. Mm-hmm. te ba léegi dañoo tënk. tënki googu nag soppi xalaat yi moo koy maye. Mm-hmm. boole xam-xam yi. ndaw ñi gëm seen bopp gëm ne ah, ñun ñoo mën a defar réew mi. li fi baax ñoo ko mën a defar li fi bon yitim ñoo ko mën a set. kon ñu góorgóorlu bu baax a baax. njiit ñi ñu góor góorgóorlu ci lii nga xam ne moom lañ leen dégg. xam ne defaluñ yàlla lu tax mu jox leen ko mm. ndax bu doon defal yàlla mooy tax am na ñoo xam ne yàlla la ñuy xëyal di ko gontul te des fois lu ñu lekk sax da leen di të yow nag nga nekk ci li nga nekk suñu borom jox la li nga jox lim la jox nga koy puukarewoo di ko ndamoo waaye wàcceel sa bopp nga ànd ak askan bi te liggéey ak ñoom xam ne lii mu la jox am nañu ko bëgg te mënuñu koo am mm-hmm. du ku nekk ci jot kon liggéeyal ci yàlla ndax imaam nga mm-hmm. imaam képp ku jiite rek imaam nga mm-hmm. kon na nga jiite ci ci ngor nanga nga jiite ci ci dignité na nga jiite ci fulla mm-hmm. loolu rek laa leen di laa laa ci laa ci kii ñu xool ba te gaydel ndeysaan mm-hmm. boo gisee sunu senegal bi du dëkk bu mag mm-hmm. Ah? dëkk bu te ne dëkk bu dëkk bu yam la ah vraiment ay jumbo cinquante francs ci dëkk bu te ne ay milliards rek ngay dégg saa boo xëyee di dégg ay milliards milliards xam nga ñu ngi investir ay milliards fu bari ah. dëgg la baax na réew dafa war a dox. Mhm. mais niñ ko dugal ci priorité bi. sama mhm. xalaat. Mhm. dund bi dafa seer. maanaam. bu ñu xoolee. Sénégal dafa am lu ñu manqué. muy dañoo dañoo dooleelul géej gi dooleeluñ ko. géej te daa bokk ci liy développé réew. réew jaay nañ suñu géej gi lu ci ëpp. beneen bi mooy dooleeluñ càmm gi. ndax loolu dafa bokk ci liy dooleel réew. Mhm. mbay mi. Mhm, ñu dooleel ko. ñun am nañ lu nekk fii loo xam ne buñ ko génnee rek ñun jëratul ñuy wuti wuti ji fenn ndax am nañ naaj. Mhm. am nañ àll. am nañ ay ndaw yu am doole. lépp lu Afrique bëgg rek am na ko. léegi lan moo ñu dese ñun ñu am gëm-gëm. ñu am ñoo xam ne aji bëgg réew lañ. li fi ak sa réew demula ba gënal la sa bopp rek mënagoo yor réew yow. te ñun ñii jiite seen bopp leen gënal seenum réew. Mm-hmm. pare wuñ ngir jixaatal seen réew. waaw nit gu maanaam président dëgg balaa moo mat président. Mm-hmm. dafa war a pare ngir jixaatal réewam. Mm-hmm. ndax boo ci faatu woon itam ci xare nga faatu. xeexal sa réew ci xare la de. xare la xare la. xare la xare la. bul nangu mukk bul bañ mukk ku la sikk. ci bëgg ak ci bëgg sa réew. waaw mm-hmm. yow na la bëgg sa réew jaral jaral lu ne te na la bëgg sa réew gënal sa bopp yow mm-hmm. bu dee da ngaa bëgg a yorum réew la waaw dëgg ndax ci suñu njiitu réew yi Afrique bi mm-hmm. suñu Afrique bi kenn mënut a yor réew mi te maanaam amoo genn pas-pas bi ndax xonq nopp yi tubaab yi ñoom ñooy njëkk a ñëw la leen di njëkk yitteel nag mooy ger la ger gi mooy tegal la ay proposition boo doyluwut ànd ak sa ngor rek da ngay sensible moo tax ñaata nit nga fi gisoon ñoo xam ne dañ doon wax gëm aji aji bëgg réew a gëm-gëm te mm. bi ñu toogee nga gis leen ñu dem ànd ak tubaab bi dëgg la dañoo doyluwut mm-hmm. réew ku doyloo ko mën a yor mm-hmm. ku gëm réewam ku bëgg réewam mm-hmm. waaw mais actuellement fii réew mi toll metti na lool